sama Abdou a ngi toog sama Mansour a ngi toog sëñ Babacar a ngi nii toog a ngi toog man ma nekk sëñ Moustapha kii jur ka ñett yi yam ko Abdou Sall ak sama Ahmed si ñuy toog si gannaaw bi di dafa mel na kenn xamul looy wax sax waaw rafet na ba ëpp waaw waaye ma bëggoon rek ngeen bàyyi seen xel ci benn ay alkufru bi anamillaahi alkufru bi anami bi bi ma waxee góor gi mu waxtaanee ci Hajj Malick dafa am yiw bu nu yàlla wàcceel fii ci senegal di ci Hajj Malick ñu miin ko ba pare réere ko te yàlla wax benn aaya bu graaw si alkufru bi anamillaahi yàlla defal la xéewal te xamoo ko wa daraba allahu masalan qaryatan kaanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi anamillaahi fa azaqaha allahu libaasa juu'i wal xawfi te jàll yàlla jukkoon wax si lii ilaa fi quraysh rihlata shitaa'i wa sayf falyabudu rabba hadha albayt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawf Quraysh la yàlla joxoon garantie boobu waaye lan moo doon condition bi falyabudu rabba hadha albayt mu dig leen ni du ñu am du ñu du ñu tiit du ñu xiif waaye bi mu leen wàccelee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamuñu xéewal bi leen yàlla defal ba xatal ka ba mu gàddaay dem Medinatul Munawwara yàlla fàttali leen lan moo doon Quraysh lan moo doon Makka démb leen kaan qaryatan daraba Allahu masalan qaryatan kaanat aminatan mutma'inna musul am problème tranquille yàlla si boppam mooy dugg xewal ñëw sotti leen waaw yatiha rizquha ragadan en abondance min kulli bépp béréb si àdduna yàlla ne man maay dem dugg ñëw sottul leen waaye bi mu wàccee yonent bi te xamuñu xeewal bi leen yàlla def waaw te sëñ Cheikh wax ni min ayati min asaari ni'matillahi ala al-ibad an yab'asa fihim rasulan min anfusihim waaw xeewal boobu ñu réere ko fa kafarat bil an'ami llahi fa azaqaha allahu libaasa al-ju'i wal xawf mu ñamal leen lan mooy xiif ba pare ñamal leen lan mooy tiit te man xaw fu foofu terrorisme laa laa koy jëlee kon ma bëggoon rek wax nit ñi tey xewal bii nu yàlla defal te def conference ci Seydi Hadji Malick moo ko indi waaw waaw ñuy indi que conférence bu nga xam ne bii ci Seydi Hadji Malick lan koy def di bëgg dekkal idée bi nga xam ne bii xalaat bi sëñ Cheikh amoon en 1951. majhulul majhulul ummati yi ki nga xam ni dafa siiw si Sénégal ba pare te ñu leen di ko te mooy Seydi Hadji ñu jël bés bi tuddee ko sama maam waaw looy wuyoo lu nekk dañ koy wuyu dafa mel ne tey bés bi ñu na bos dañ leen di sant di sant waat ko Seydi Hadji jeex bi ngeen jeex si njabootu si Seydi Mouhamadou Moussa Mamour bi si turu xadara bi si turu njaboot papa ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant soxna Ndeye Sophie di sunu bàjjen sunu bàjjen fas yi ñuy toog ñëpp toog na njaboot gi yëpp ñuy toog sa bàjjen fas Sophie indi teraanga du réyére indil nu ko ndax ñu ko tuddee sa maam Habib dara desul xaalis ak cuuraay ak lépp même lu ñuy lu ñuy suuree euh, raw bi bi sax indi naka ñuy xeewal loo mën ren ak ak ay kaamil yu bare bare si daara lu ngeen mën ren yàlla ngeen mën déwén lu ko ëpp yàlla bu leen jéem lu ngeen tere ma jox kàddu bi rek sëñ bi sama papa te ñoo fekk si fii alhamdulilah si ñuy toog di waxtaan kii si alhamdulilah yi nga teel a am daanaka doyoon na wax waaye du tere. ndax dañ doon laajte El Hadj Malick moo yilif nit ñi ñu ne waaw ñu ne moom kuy kilifa ñu ne am na ñaari kilifa kenn ki mooy kilifa bi kenn ki moo ci topp di ko sàmm ñu ne ne charia mooy kilifa sunna koy siré kon kenn du libéré mbooloo mi toll nii nga ku ci ñëw nuyu seen yàq nee nga képp koo xam ne kii seen nasar ci sa jaay baay geesu ku nuyu seen Mansour nuyu nga képp koo xam ne kii jullit bi la teg ci yaakaar seen i jëriñ ak li nga wax li ma fi fekk nag yitte la joo xam ne ji war na yitte ñëpp ndax wax Seydi El Hadji Malick fi mu jaar mu mel na foofu la yonent bi jaaroon ba yàlla ni ko wa innaka la ala xuluqin taxul mission ba jeex si daal maa ngi nu ñëwee ni man kat ci chargé de mission yi laa bokk takk ndigam sóobu yoon def ci luñ ci war a def te mooy ko ko ko yombalal gannaaw lu ne la yàlla moo di nit boo àndeeg moom te nawloo ko fokk nga ko te Seydi El Hadji Malick ku mu nga na la yëg na moo waral mu mën a àndandoo nit ñi mu àndal ba def ci ñoom li mu def ci ñoom te jëlee ba ca borom parce que su su yëfu bopp mu jëlee ca yàlla arsalnaaka illaa bashiran wa maa arsalnaaka wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin déedéet bashiran wa nadiran wa daa'iyan bi idnihi wa sirajan muniiran dafa ne yónneenti yàlla bi yemul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni pour mu tasaare ko tasaare boobu nag la ci agsi ci man danaa ko tasaare ni ko yàlla bëggee loolu la fi liggéey moo waral coow li bare moo tax nit ñi kenn neex na tëkk mënuñoo ci jot te moom rek ndax waxfir lanaa wa liman min baynina nasabu min jihati tiini aw fi diini ñaar dina ko fi nekk bokku diine wala bokku nasab min jihati tiini aw fi diini min jihati tiini nag ña bañ a nga jël ñu naan moom a jël min jihati diini diini nag ñu naan lu ñëpp a ko si daal maa boobu liggéey la liggéey wan nit ñi yoon gindi leen leeralal leen yar leen yarama fi nekk boo seetee réew bi wala fii addina bi lii nitu diine ñeme boo demee fekk te wax na la ko sañu ñu ko def alhamdulillahi rabbil alamin suñu tànn ay bokkam te yàlla di ko tànnal bokk ku mu tànn boole ci seen arrangement yi la ca des yaa ca des ndax nit fi mu mën a yem ak yow fexe ba tibb sa xàll sax xam nit yéene yéene jàmm bàyyi laaj sa bopp mën a defal ko ni la ko mën defal alhamdulilah rabbil alamin si la adduna bi bari na yoon waaye yëpp ñu ci def na ci la ci war a def na ko ci la mu ko ci war a defee te naabuwul ci dara si la adduna bi naabuwul benn te yàlla ku naabu wala ku gis sa bopp wala ku yëpp ñu defal ko yàlla dara ndax yàlla loo ko defal mu nangu ñu defal ko ni la nag kaay woon na li ma defal ma li ma ko defal su boobaa nga xam ne dafa doon dara te daal maa ngi ne dafa ni ko sant nga ma lépp nga ma lépp waaye man de defal ma la dara walay seen yaa am amalu alqaaka yaa amali si wal mahabbati wa taabini wa salami te daal maa ngi foofu la simi koo jox yàlla su ma jëm see ci yow it amul lenn lu ma yëg ñu defal naa la lu dul nag xool bu lëndëm te dëggu ci jëf ak xool bu sopp te dëggu ci eh, jëf te leer yàlla dogal it nag ñun ñi fi toog kenn ku fi nekk si la may jur la wala mu jur ku la jur wala nga yaakaar ñëw fi fi jaarale sa yaakaar. kenn ku ci nekk bàyyi nañ la fi ndono loo xam ne nii war nga ci góorgóorlu lii warul yem ci déglu rek def dafa war yem ci déglu dégg dem jëfati mag ñi loolu la ñu rawee loolu la ñu toppee woon seen ajmaani Cheikh Mouhamadou Razali loolu la toppoo Seydina Tijaan topp ko xam ni moo ko ëpp cër ca yàlla mu topp ci gannaawam di ko waaye teewul nag bu gisee lu ko jaaxal mu ne di daal sew sew yi seen arrangement yi daan topp ci diggante ma borom ñu wax léegi nii mës na wax Amadou Mbaye Maodo ni ko moo amul guro yi ñuy lekk ci seen bu ñu dajeeg yàlla nañu koy layee Amadou Mbaye Maodo ne ko fatiha yi ñuy jàng gannaaw si moom lañ koy jëndee man ko ah Amadou xanaa nga ñemee ko ko waaye Malick tey jaaxle na ci ndax lii yàlla tudd ba di fas tudd ci góor nga kooku la mu bàyyi xel wane wu ko yëpp waaye nag la mu ci ñàkk a wane na ko nit ñi gis kon ñun am nañu liggéey bu rëy ci wàllu mbay laa bokk daal bi la baax na bokk ci ak nekk ci du benn ba nekk ci boo ci nekkee loolu may am nga bokkoo moom lu mu am bokkoo yow boo ci nekkee nag boo gisee fu gën a xumb rek doomu ti te fi xumb bari na fi xumb bari na kilifa diine nga dafa romb làmb jëkk lii fii fekk nit ñi di ko yéem mu taxaw di seetaan làmb xam nga boroom xel ñu ne ah sëriñ bi de li seetaan la am ñu dégg daal di gars yi kaay ñu ñu la fii ñu ne dañuy lam ñu ne ah naa bu ñuy loolu nag xam ko jëfe gannaaw loolu jotaay bi ñu jàkkaarloo ko sëriñ Moustapha Sy radiyallahu taala sëriñ Moustapha nit la woon boo xam ne bii yàlla ko tànnal boppam ci biir bi xam nga bu fi cër yi nekk te ñi fi nekk di wut ku ñu ko jox pour ma jëriñ defaloo yàlla def mu njëkk fii ku gàtt xel bu lépp jox te loola yëpp dajaloo na ci loolu yàlla mayoon na ko muy ni ko Mansour waxee jaar na ci loxo waaye Mansour jaxasoo naa moom am na lu wax seen diggante am na luñ ci wax am na luñ ci dul wax lu bare bare bare bare nee na si monsieur Ba radiyallahu nee na ànd naag sama bàyyi Mansour ci diggu àll boo xam ne bii su ma tàllalee sama benn loxo du bi ci des nee na sama bàyyi Mansour dem ba mu yàgg mu ne ko tafa mu ne mu toog ci lëndëm bi nee na moom moo avancé ba xamatul fu mu nekk mu jékki-jékki dégg ko ci guddi mu génn fa mu nekkoon di dox ci àll bi di dem muy dégg baatal naan yaa rijaalillahi rabbu laysa si wallahi rabbu lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun loolu nag dafa am loo xam ne ku ko fekkee rek am na ci cër ñi ko warul woon fekkee ñu woon ca daara ja dina moom mi nga xam ni loolu ci la yeneen nekk moom la war a yeneen moom la war a jiite nit ñi moom la leen war a yare moom la leen war a jàngale ba muy xew fekke na waaye du du cëru ñëpp am na ñoo xam ni toujours wala di wax ñëpp kanam la ñu bëgg waaye gannaaw foog mu am gaay loolu mënul nekk su ko defee ki yàlla may li mu ko may ba mu war la jiitu nangul ko mu jiitu la nga topp ci gannaaw lu war di nga far lu war di nga far waaye boo nee nit nit ñëpp yàlla yemale mu leen wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajaat kon mbokk yi Cheikh Mouhamadou Bari yeneen Cheikh Ahmed Tidiane yonent bi yonent bi lu tegu ci loxo àddina ci loxo yàlla kon ñu ngi dalal suñu xel te di seet suñu bopp fu ñu toll xaasibi nafs fi dunia muhaasabatan qabla qiyaamati tarbah duna usrani nit ku nekk war nay vérifier boppam war nay seet boppam war na wàññi rafet njortam war na wàññi naagoom ba li ko war mu jéem ci taxaw te nit ne loo bañ bañ nit ñi critiquer la ci sa biir ne critiquer sa bopp kenn gënu la xam sa bopp ku dul yàlla kon mbokk yi li ma fekk axlaaq yi nga xam ni moom la yàlla gërëme yonent joxoñ nit ñépp nit ku bëgg a mel ni ma bëgg seetal ci yonent bi ah loola Seydi Hadj Malick ci la xool ndax dégg naa nee na man kat Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mooy sama sëriñ waaye sama roy waay nag Seydina Muhammad moom la yàlla moom la ma yàlla sant kon nit Seydina Muhammad la yàlla sant nañ leen muñ jàng muñ nañ leen te liggéeyal yàlla kenn du ko doole ci loxo kenn du ko doole ci làmmiñ kenn du ko doole ci tànk innamal a'maalu binniyaati wa likulli imri'in maa nawaa lépp lu te bëgg a jëm ca yàlla boo bëggee moo àgg fondement ba dëgër doole ko ci sa xol xol ci la di defaree lu yàlla di am kon yal nañu yàlla dafa taw fii. ah te sell yaa ngi ko jàng salatul fatiha jàng ayatul kursi suratul ixlaas yi tëjewaat ko salatul fatiha kenn ku ne nag yéene li nga bëgg ci lu baax ci sa xol yàlla na la ko yàlla defal ca la ko bëggee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ak i weer wi ak bis bi yëpp tabarakallah ngeen jàng ko ñu ànd dogee ñu jël yëpp ñu jàngaloo fatiha salaatul fatiha ayatul kursi suratul ixlaas yi tëj wax ko salaat أجى قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى أجى قلبي من خيال قد سرى قلبي قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى

من فجرا هدق البيت خلال قسرا قسرا وسطني قد جفا طيفك بين ويبكائي لا تقل ما في خيفتك بين خيفتك المشاني قد يرى قد قلبي بخير قد سرى قد سرى